Alamine Boutique est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires sénégalais. Notre mission est de vous donner accès à des aliments locaux de qualité qui participent à votre bien-être et celui de vos proches au travers d'un commerce équitable. À Boutique, c'est aussi le choix de la qualité et du goût de produits locaux soigneusement sélectionnés et triés sur le volet. Acheter des produits venant de tout le Sénégal sans bouger de chez vous, c'est possible avec Alamon Boutique. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits qui font la richesse de notre gastronomie locale. Arao et Chakri, Central, Kenkeliba, pâte d'arachide et bien d'autres mets. Nous avons une unité fonctionnelle qui respecte les normes de fabrication de produits alimentaires et des points de vente un peu partout à Dakar. Consommez à boutique c'est favoriser le développement de notre économie locale. Consommons juste et consommons local. Assalamu alaikum, euh, moi qui spectateur de euh, Jotna TV euh, donc tey nous avons nañu di commencé benn émission bu bees tous des café patriotique donc soo c'est émission nous sommes tous ko cafés patriotiques mooy que dañuy inviter ay nit ay kangam ak ñi nga xamante ne am nañ ay xam-xam yoo xamante mën nañ ko jëfëndiko donc euh, ñu inviter leen waxtaan ak ñoom si ay sujet ay thèmes ay thèmes yi nga xamante si bind la par exemple mu nekk livre wala mu nekk benn production artistique mën na nekk théâtre mën na nekk cinéma mën na nekk aussi euh, chanson way donc euh,

cinéma wala mu nekk euh, livre donc loolu moom mooy euh, café patriotique donc euh, mën nañu wax aussi bind yi en général wala li ñuy waxtaanee en général lu soxal Afrique la lu soxal Sénégal lu soxal réew mi la donc loolu moo tax aussi ñu tuddee ko patriotique parce que dañoo bëgg aussi waxtaan bi jëriñ Sénégal jëriñ Afrique aussi

Diallo Diop ki nga xamante ne eh, jarul ñu koy présenter mais ñu jox ko parole bi rek comme ça mu nuyoo eh, spectateurs yi. jërëjëf saw ma ngi leen di nuyu di leen gërëm ci woote bi ci invitation bi di leen ci sante di nuyu mbooloo mi askan wi ñu seetaan di am yaakaar ne waxtaan wi dina jur njëriñ seen émission bu bees bi nag. Euh, lu am solo la ndaxte xarale yi muy rajo di télévision ak i euh, journaux yi nga xam ne ay ci bind lañ lañ leen di tasaare euh, seen wareef seen warugar mooy yeete yee nit ñi ci àdduna si ci réewum Afrique ni muy doxee lan moo jub ak lan moo dëng ci doxalin te nuñ koy saafara lan mooy saafara si loolu daal euh, soo leen fexe ba bay seen waar ci wàll woowu ci fànn woowu am na yaakaar ne di ngeen am ay mbooloo yu baree bari ñu leen di déglu maanaam ci jot a dégg kàllaama wolof. merci beaucoup docteur boo xoolee émission bi sax mën nañ ne si wolof lay doon euh, maximum possible. ci wolof lay doon wolof accessible aussi donc bu fekkee ne am nañu fi invité bi nga xamante ne xëy na euh, du ko mën a euh, exprimer en wolof aussi du tey mën nañ ko def aussi en français mais même français bi aussi français bu accessible lay doon donc voilà docteur donc tey jii ñuy waxtaan si pensée politique euh, Cheikh Anta Diop donc pensée politique Cheikh Anta Diop xëy na buñ koy traduire

il publiait Paris Présence africaine euh, en 1989, donc euh, numéro 149-150, Présence africaine. Deuxième moi, moi c'est Anta Diop le le savant et politique article donc euh, prononcé la journée lors de la journée du parrain de du cadre ce 31 mars 2020 donc là, mon temps de euh, article, yi euh, effectivement. Euh, article bi nga njëkk a tudd euh, sas euh, woon direction présence africaine moo doon sargal Cheikh Anta Diop ginnaaw bi mu euh laaj ay nit ñi ko xamone ñi ko won euh ñu magal ko ñu bind dal li ñu xalaat ci. liggéeyu cheikhanta da nga xam ne liggéey bu jéggi dayo la te kàngamu Afrique yëpp seedeel ko ko man nag lii ma xawoon a wutaleeg ñeneen yi mooy ñi ci ëpp li leen gënoon a soxal ci li fi Cheikh Anta bàyyi xam nga li ci ëpp mooy ay bind dafa bind ay téere teg mooy xam-xam yi mu xalaat yeeg yi mu génnee bind teg Euh, démb ak barke démb ak barkaate démb Afrique bi mu sulli feeñal ko fësal ko euh, kàngam gi daal borom xam-xam bi la ñu gënoon a fay daal moom moo ëppoon solo ci ndonoom ci seen gis-gis man nag te bari naa si ay moroom ci gone yi taxawayu Cheikh ci wàllu politique moo gënoon a moo ëppoon solo ci ñun ay xalaat la waaye ay jëf la tamit gis nañu taxawaayam ci Afrique balaa ñuy moom suñu bopp ci indépendance soixante benn noppi ci Sénégal ci réew pays réew bu mu juddoo ginnaaw bi ñu jëlee indépendance ni ñu koy waxee moo tax ma tënk samay wax wa mbirum politique lan la fi Cheikh Anta bàyyi ci wàllu politik moo xam ci ay xalaat la moo xam ci ay jëf la loolu laa jéem a leeral faram-fàccee ko ci article boobu te nga yàgg na boobu bi Cheikh Anta bi ma koy bind euh, at rek la woon ginnaaw bi mu nelawee ci lañ ko génnee waaye jënt nañu kay ci lu mat ay ñaar bi ñetti at balaa ñu koy génnee voilà euh, am na ay édition yu gën a gaaw ci ni naka la ñuy génnee seen liggéey waaye édition africaine daal moo xaw a sàggan ci fànn woowu euh, bu mujj bi nag moom yàggul ren jii la te boobu kenn santuma ko man maa ko xalaatal sama bopp seetlu ne bés bi ñuy màggal bés bi université de Dakar bés bi mu jagleel kiñ ko tuddee muy Cheikh Anta Diop ci ko ci sargal ak ci màggal euh, wute na ak euh, ni par exemple RND muy partie bu mujjee samp fii ci réew mi di ko màggale at mu ne euh, bi ñuy ci bës bi nga xam ne ci la dëddee ci la ci la nelawee ñun du ñu tëb benn at at ju ñu ziyaare ko ceytu ci xabroom mm-hmm. waaye université Dakar bi ñu ko tuddee mm-hmm. yenn at yi dinañ ko sargal dina dinañu am lu ñuy def ci bés bi yeneen at yi doo dégg dara dara du xew mm-hmm. te comme yàlla daal def na ren jii bés bi muy fanweeri fan ci weeru mars moom la ñu jagleel Cheikh Anta ci université wu Dakar euh, dafa tasee jàngoro ju bon ji ñu koy woowee coronavirus xamoon nañ ne même suñu yéene woon tamit màggal bés bi dara du xew ndax euh, euh, couvre-feu bi ak l'état d'urgence sanitaire loolu woon ci laa ne kon nag euh, comme mënuñoo jëf nañu bind teg parce que loolu moom kenn mënu la koo tere mais yaakaaroon Fait fekkee journée du parrain parce que quand même université tuddee nit alors euh, mel ni Cheikh Anta Diop nga xam ne nañ ne àdduna bi xam donc euh, le journée du parrain normalement euh, dañ ko waroon respecter. lan moo tax loolu amul faw nga dellu gannaaw soo buggee xam loolu lu ko sabab gis nga bi Cheikh ant gaañoo euh, fekk na président Abdou Diouf moo fi nekkoon fekk mu tukki bi mu ñibbisee xam nga ñun euh, aada la daanaka ci réew mi saa yu borom li ñu koy woowee borom réew mi <laughs> njiitu réew mi la. réew réew mënul am borom ndaxte ñit ñi kenn moomu leen waaye na xam nga rek bi mu yegsee euh, journaliste bi. Euh, ne ko président de sa gannaaw am na lu tiis lu fi xew muy Cheikh Anta bi ak yooyu euh, loo si euh, am wax ak yooyu mu ne si kenn ñooñu ñu ngi koy mettitlu ndaxte kàngam borom xam-xam bu mag la woon àdduna si yëpp seedeel ko ko bla bla bla bla ba noppi mu rax teg ci bi ko na mu tuddati Dieng soxna Dieng la woon soxna Dieng ne ko. Euh, ñooy ñi mu bokkal ñi mu seqal université bi sax ne na ngi ñaan ñu ñu ñu jagleel ko université tuddee ko ko xam nga lu ko Abdou Diouf tontu hmm. mu ne ko ñun fii ci Sénégal bokkul ci suñu aada ñuy tuddee suñuy kuréelu jàngale yu mag yi muy université yi du leen tuddee ay nit hmm. du bokkul suñu aada hmm. rek soxna tontu ko ne ah université Gaston Berger bu Ndar nag mu ne tasax Ah, ah, <laughs> naan ne tasa naan ne waaw mais xaw ma lu mu lay daal mu lay am na xam nga mënul tontu waaye fekk na jàngalekatu université Cheikh Anta bu Dakar taxaw taxawaay bu dëgër ne loolooy am ndaxte looloo war te loolu la ñu bëgg hmm. te looloo mujjee am. mën nañ ne kon ko. ñoo ko imposé. ko xeex. ba mu mujjee am waaye du woon sagowu du doon yéenewu jiitu réew mi ci jamono yooyee loolu moom du du kon nag xëj na loolu mooy leeral li waral benn nga ni ñu ko ko tuddee ak léegi ëpp na fanweeri at waaye ba léegi xalaatu Cheikh Anta ak i xam-xamam kenn du ko jàngale bokkul ci programme université bi ñu ko tuddee. waaw ngi noonu loolu la ñu mettitlu loolu la ñu tawat ci mhm. kayit googu wante lii ëppoon solo ci article bi ngay wax mhm. moo doon wane ne Cheikh Anta Diop gaa moom mennum nit la woon di mennum jëmm waaye ñaari kanam la. benn bi nga xam ne moo ne fang-fangaaral ñëpp seedeel ko ko ne borom xam-xam bu mag la le pharaon du savoir la ñuy wax waaye euh, ëpp na loolu mais beneen kanam gi muy taxawaayam ak xam-xamam ki xalaatam ci wàllu politique dañ ko ñàkkal fayda dañ ko suufeel dañ ko dul tudd sax faf mm-hmm. dañuy ne euh, pharaon du savoir mais nul en politique. d'accord voilà Le premier article c'était mais euh, euh, même savoir bi parce que boo ko parce que yo, da nga euh, savoir bi ak politique bi mënuñu ko séparer parce que dans nga le savant est indissociable. du politique politique. donc mën nañ ne même savoir bi peut-être savoir il faut imposer wu mënuñu

ci science humaine yi ngay wax la ñu doon euh, léegi lañ doon lañ doon fa faral di di di jublu euh, te loolu moom euh, lu dul baamtu liñ leen jàngal da ngay jàng ah mooy xam nga Cheikh Anta daan faral di wax na ñaari xeetu jàng am jàng tari fàtte ak jàng mokkal sak xam-xam bu bees ñi ci ëpp si suñuy jàngalekat yi dañuy jàng tari ba à la ñu fàtte te li ñu jàng rek lañuy ñuy tari te li ñu jàngal mooy li leen tubaab yi jàngal ndaxte tubaab yi ñoo ñoo ubbi kuréel la jàng daara yooyu su dul tubaab yi muy naar yi te benn la li ñu leen jàngal la ñuy mokkal dégg nga ba mokkal dañ koy tari ko ba noppi tas ko mu law waaye sàkk xam-xam bu bees fow nga segg ci li ñu la jàngal li ci jub ak li ci dëng moom la Cheikh def moo tax ñu xeex ko waaye fi mu ko tàmbalee du ci science yu dëgër yi science yu dëgër yi daf leen jëriñoo rek ngir gën a taawal gën a dëgëral liggéeyam ci xam-xam yi jëm ci nit ak i mbooloo science sociale loolu moo waral bu bu wonee ne euh, Afrique moo njëkk am Afrique moo njëkk yeewoo

nee na moom ci njëlbeen li ko gënoon a jaaxal mooy biñ ko ne euh, histoire Afrique daal fi muy tàmbalee mooy bi naar yi wala tubaab yi yegsee pour yee ñu ndaxte dañ doon nelaw ay espèce rabu àll lañu woon mu ne loo sore sore sore doo weesu euh, juróomi xarnu mm-hmm. mbaa fukk mbaa mm-hmm. fukk xarnu benn millénaire foofu lay yem mu ne moom nag dafa bëggoon a seet ci ginnaaw loolu balaa booba mais fu ñu nekkoon at ci lan la ñu nekkoon woon ci la dajeeg benn que nit maanaam euh, mindeef fii la juddoo loolu la njëkk loolu la njëkk feeñal moom su fekkente woon ne Adam am na waaw ak Ève fii la woon te du woon feneen mm-hmm. nit ñi di ci wérante. mais découverte yi c'est-à-dire dañ dañ doon wérante. waaye tubaab yi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo jekk àdduna si ndaxte ñoom ñoo moomoon di noot li ëpp ci ñu dul tubaab ci àdduna si moo kam nit ku ñuul yi naka euh, jaune yi asiatique yi moo xam nit ñu xonk yi ñoom dañ leen sax Euh, faagaagal voilà mu ngoog daanaka dégg nga léegi Cheikh Anta wane ne werante bi euh, jaratul am soxlawul ndaxte xew-xew yi atte nañ ñu li mu wane mooy lii nekk ci ay nit njëkk am ci xeetu mindeef Afrique la ñu gën a bari te Afrique rek la ñu nekk newuñu feneen xam nga benn ngoog mu rax teg ci ne lépp lim nit indi ci àdduna si moo xam euh, wax la wax bind xayma gëm yàlla religion euh, xalaat démb tey ak ëllëg muy histoire ak ak jaww ji lan lu fa nekk ak yooyu yëpp mu ngoog mhm. ak élevage ah sàmm mhm. ak bay mhm. euh, euh, euh, defar ay gànnaay walla ay jumtuwaay ay liggéeyukaay nee na lépp laal lu nit indi ci àdduna waa Afrique ñoo ko fi njëkk ñoo ci jiitu ñëpp te ñoo jàngal ñeneen yi ndaxte ñeneen yi ci ñoom la ñu soqeekoo xam nga ñaara ngoog

mooy mooy mooy Soudan wu tey ak Éthiopie waaye soo seetee ñoom égyptiens ci seen bopp ci jamono yooyee dañ naan faral di wax ne seen cosaan c'est à la source du Nil c'est le fond du sud du continent mooy Ouganda dina dem ba Ouganda ak Congo daal loolu lañ bind teg gars ne kii day wax lu ko neex day day day day léeb ngir euh, africain yi nga xam ne dañoo jóge ci mbuumu jaam ak opération coloniale day leen di jéem a fital daal ak di leen euh, euh, di leen di wax li ñu bëgg digg dégg Cheikh ne mukk ci àdduna lépp lu ma wax lépp lu ma bind teg fu wóor te wér laa ko wekk te soo leen ko mënee dindi soo leen ko mënee weddi indi leen ay firnde loolu nag Cheikh bi mu bindee Nation Nègre mii ngay wax 1954 la boobu ba léegi ñu ngi ci buumu njaamu tubaab yi waaye fii leen xew-xew yi attee mooy 1974 ñaar fukki at ci gannaaw bi ñu defee seen congrès du Caire seen colloque du Caire borom xam-xam yëpp kàngam yi doon def égyptologie yëpp ñëw toog Cheikh Anta ne leen daal soo leen bëggee ma ànd ak yéen. liggéey ci histoire de l'Afrique bi UNESCO buggoon na bind balaa boobu faw ñu toog déggoo ci kàddu man kenn rek lay àndal mel na nit muy Obenga ndaxte moom rek Théophile Obenga ndaxte moom rek laa xam muy mun a jàng mbindum égyptien yu màgg yu màgg hiéroglyphe yi moom rek moom mun na ñeneen yi ñu ko ñi ko mënul duñu ma amal njëriñ mu ne ñeen nag borom xam-xamu àddina si yëpp nañu ñëw français yi ñëw anglais yi ñëw américains yi ñëw naar yi ñëw suédois yi ñëw russe yi ñëw ñëpp ñëw toog mais ñetti fan ñeenteel bi ñuy tëj ñëpp nangu ne li nga xam ne kenn waru ko woon a weddi ca njëlbeen waaye dañ ko mujjee seede ne benn civilisation égyptienne Afrique la c'est une civilisation africaine culture bu mu taxawal. pharaon yi mais du yemul ci pharaon parce que pharaon yi fanweeri xarnu ak ans l'Égypte pharaonique ancien empire moyen empire nouvel empire Ouais, Égypte antique Ouais, moi, juróom ñett fukki xarnu huit ans avant pharaon. avant les pharaons. Mm-hmm. si ñun la soqeekoo ñun ñoo ko taxawal ah, uh-huh. dégg nga te mu ba léegi ay desitam mu ngi ci biir Afrique mm-hmm. te nee na su ko waa Afrique gëstoo mm-hmm. xàmmee seen bopp ci li fi woon bu njëkk uh-huh. donc euh, mu ngoog te loolu def ñu xàllal yoonu liggéey ne nga ñun al toppe moo ñu rey dañoo yaakaar ne tubaab yi ñoo téegal bukki bi lépp li fi nekk ñooma <laughs> dégg nga kon ñun dañ leen war a def royukaay ci ne leen baleen ñooñu ngeen gëstu seen bopp seen biir ngeen delluwaat seen seen mbiru bopp di ngeen fa gis lu leen yéem ti nga xam ne ci yéen la jóge mm-hmm. yéen a ko yéen ko defoon ci jamono yi ngeen xam ne yéen a moomoon seen bopp mm-hmm. balaa saay-saay yi di joge bitim réew ñëw naat noot leen def leen jaam ba di leen jaay bitim réew. léegi docteur yaakaar nga ne pensée euh, boobu maanaam xalaat boobu déjà déjà xalaat boobu avant ñuy dem si loolu sax xalaat politique boobu noonu politiquement nan la ko wala nan la ko politiquement lan moo tax moom. man nañ ne mënuñ ne duñu mën a wax ne rek échoué na parce que ba tey nii ñu ngi koy waxtaanee am na ay ay quelques résultats mais ak lan moo tax amul opportunité pour appliquer d' abord moom nan la xalaat bi nan la ko gisee woon déjà politiquement pour réaliser ko mais euh, lan moo tax aussi réussir pour appliquer ko moom. Euh, jërëjëf euh, da nga war a seetlu ne xalaatu Cheikh Anta. ci wàllu politique moo doon lan la ñu war a def ngir Afrique Afrique yëpp lay wax de ba mu daj li mu nekkee woon bu njëkk balaa saay-saay yi di dal si kawam ba def ko jaam lan la war def naka la wara a taxawee ngir loolu dàkk ba mu moomaat boppam delluwaat ci cosaanam tabaxaat réewam ni mu ak ni méngoo ak njëriñu askan wi mbooloo mi ci la ne Afrique bennoo moo mun a sottal loolu ndaxte bi tubaab yi di diisoo seen biir ci Berlin ci dix-neuvième siècle bi ngir dal suñu kaw li ñu njëkk def mooy xajatle Afrique daggate ko ay cër kii jël kii kii con congrès de Berlin ci lañ ko fragmenté ci lañ ko tas séddoo ko ñu deme deme dem balaa yàgg li ñu jàppoon Berlin mënatul wéy ndaxte sedd bi seddu bukki la woon ñi nga xam ne ñoom la yàqal ci ñi ñoom lañu ñu atte ñàkk si seddule bi dal di dal seen kaw ne léegi nag dañuy seddale waat première guerre mondiale loolu loolu loolu moo ko sabab le repartage de l'Afrique deuxième guerre mondiale noonu waaye yàlla def ci diggante gi africain yi gis nañu ne faw ñu jóg ngir dog bu mu jaam ji. ay Cheikh Anta yu dul jeex ñoo fël fu ne ci Afrique euh, dégg bu yàggul euh, benn sur le net euh, benn déclaration bu Wole Soyinka bu Nigéria xaw ma fu ko jëlee de mais moom daal nee na diggante 1960. ba tey juróom benn fukk ak ñetti njiitu réewu Afrique lañu ñu faagaagal la boom 63 présidents ont été assassinés depuis 1960 foo ma xayma nag foofu fu mu ko jëlee mais li ma xam man ci lu wóor mooy que français yi nga xam ne ñoo ñu noot ñun fii ci Sénégal ak ci Afrique de l'Ouest di ci ëpp diggante 1960 ak l'an 2000 def nañu une fukki intervention militaire ci le continent africain 50 agressions armées en 40 ans ça fait plus de une par an loolu moom du deñ waaye tey la wàllu gën en 2000 et 2020 Sarkozy liñ ma doon woo dañ ma woon di ma laajal waxu Sarkozy ne Sarkozy nee na déclaration de Dakar bi amul lu mu ciy dindi sur le fond mais xaw ma lan que lu xëj na sur la forme ak ministère bi ma ne mën naa ci commenter ma ne man ma fi nekk di werante ak say say bu ma ni Kadhafi ndaxte diggante discours de Dakar ñun ñoo ko ab Ablaye Wade moo ko may muy ñëw suñu biir réew suñu biir université bi ñu tuddee Cheikh di ñu saaga te dara fekk ko ci mais ci ginnaaw am na lu mu def Moyenne armée française Daniel Bagbo, samp Alassane Manwattara à ak caution Nations Unies ken waxu ci dara bi ñu le déeto waay mu boom Muammar Kadhafi taslibi li be bi fekk ci Afrique sow jantangi lak depuis Kidal jusqu'au Cameroun qui n'est plus en Afrique de l'Ouest qui est en Afrique centrale donc euh, ci deug deug li Cheikh Anta waxoon ne fii ak bennoowuñu di jublu benn bërëb di waxe benn baat di am mennum kaaraange bi ñuy aar ci saay-saay yi jóge bitim réew di doxal di am benn diplomatie pour ñuy ñuy dem teeg waa bitim réew dégg nga am benn koppar mennum koppar mu doon suñu devise moo xam ne convertible non convertible boobu dañ ko seet seet li gën ci ñun ñu def loolu ainsi de suite am benn làkk mennum làmmiñ mu doon làmmiñu Afrique dégg nga loolu yëpp moo yéene bi Cheikh Anta yéene woon Afrique ngir mu suqaliku te suñu mbokk yi maanaam rawatina suñuy ndaw yi suñuy gune yi di bàyyi mbëkk mi di bàyyi di yaakaar ne Afrique safara la que ba ñëpp di màng mel ni ay rab di dee ci yoon bi di dee ci dex yi di dee ci désert bi loolu yëpp balaa muy deñ il faut ñu delluwaat ci xalaatu parce que li xalaatu Cheikh Anta Cheikh ci gën a siiw ndaxte moo ci gën a gëstu gëstu bi gën a sori bi gën a xóot waaye bépp doomu Afrique bi bëgg Afrique te bañ fi nekkal tubaab yi li li mu fi bind teg wala li mu fi wax wala lu mu fi taxawee ak li taxawaayu Cheikh Anta bindu Cheikh Anta benn la moo xam le premier pays d'Afrique noire indépendant muy Kwame Nkrumah Ghana daaneel nañ ko ñaareel bi di Sékou Touré moom rek la tubaab yi fexelul ba am ci ndam mm-hmm. bi mu daanoo la ñu def ku d'état ci fan yi ci topp ñoom Modibo Keita ñoom Barthélemy Boganda ñoom Um Nyobe ñoom Lumumba ñoom Olympio limbi kenn lu limba jeexal leen kenn voilà léegi mais ñoom ñëpp soo ko seetee ba ci biir seen xalaat seen gis-gis ak seen taxawaay ak bu Cheikh benn la kon Cheikh am na limu def ci wàllu xam ak gëstu am li def ci wàllu xeex ak xëccu man dama bëgg a euh, parce que aussi bon à chaque fois aussi wax tubaab bi def nañ di def nañ di nañ bon loolu d'accord ñëpp comprendre mais il y a souvent des gens qui qui pensent que africains il euh, faut mel ni dañuy daw responsabilité à chaque fois euh, parce que accuser dafa trop nan man ki moo tax awma ki moo tax réussiruma ki moma a xañ nii wala moma a xañ lële soit d'accord loolu amna ken kenn ko wérante mais est-ce que évaluer nañ bo xol pas de responsabilité africain parce que ñu fi de euh ñëpp c'est Sékou ak bo bon amoon na ay temps yi nga xamante ne ñooñu noonu dañ leen doon xolé comme ay sanguinaire ay sanguinaire dañ leen doon xoolee ñun africain dañ leen doon xoolee comme ay sanguinaire xam nga Kadhafi c'est récent c'est très récent Gbagbo c'est très récent je me rappelle il y koy jàpp si cœur en noonu mais les gens étaient contents c'était l'euphorie parce qu'on a dit qu'on a pris des assassins jàpp nañu ay assassins mais les gens toogaatee di waxaat Gbagbo dañ ko sacrifier wala yu mel c'est la même chose pour Khadafi Kadhafi c'est récent je me rappelle bi ñu koy euh, jàpp et cetera lyncher et tout beaucoup de gens étaient contents ñu bëri dañoo content mais tey jii ñu encore que Kadhafi moo fi moo fi nekkoon ki nga xamante ne dafa amoon yéné bu baax en Afrique euh, donc là, mon waral nit ñi ñu mel à chaque fois population bi si boppam dañuy accepter ni ñii ay ay monstre lañu wala yu mel non. mais bu ñu demee ba si kanam. Nous comprendre que nous est-ce que la population yi à chaque fois Ou euh, c'est c'est après il y a une autre manipulation aussi. <laughs> ya euh, bari bii ñuy daaneel ko Kwame Nkrumah en 1966 fekk moom 1957 la jël indépendance xam nga ti ti tiimul Ghana fukki at juróom-ñeent rek la mais dafa doon dem boobu ñu ngi ci guerre dafa doon dem Moscou ak Pékin xam nga loolu moom tubaab yi casus belli la woon ni ñu koy waxee. ñu dalal ko mais nee nañu ci li ñu wax parce que man nit tubaab bi di wax balaa ma koy gëm teg bët gis ko su loolu lépp lu ñu mën a wax pour man ay feni kese la ba safaan wa taxaw ma man war ko nangu ndaxte teg bët gis bay di bokk ci mais Nkrumah gaañoo parce que bi mu gaan de bi mu de ga euh, tur bi ñu ko daanalee bitim réew ñibbi wul réewam. dafa dem exil Guinée le deuxième pays indépendant après le Ghana en Afrique noire Donc, mhm. fa yàlla def 1972 rek Guinée a oui oui. il était vice-président de la République de Guinée parce que bi Guinée l'indépendance. indépendance Bé De Gaulle euh, euh, indépendance l'indépendance. lan la tekki nangu koppar gi banque coupé téléphone yi hmm. dossier yi yëpp ne leen léegi nag ay waleen doxal leen amul woon lu muy fayee fonctionnaire yi hmm. moo ko yónnee dix millions de dollars pour payer les fonctionnaires parce que référendum c'était le 28 septembre hmm. proclamation de l'indépendance le 2 octobre weer dee na faw nga fay nit ñi yóbbu nañu koppar yi dégg nga kooku ko jox xaalis bi mu fayee fonctionnaire yi ngir yi yi bañ a jóg euh, 1972 benn néewam dellusi euh, parce que bi réew la gaañu Roumanie la gaañu fa la faji woon ñu yóbbu indi waat ko Conakry gars yi denc ko ci mosolewu wu ñoom Samori ak ñoom Alpha Yaya ak yooyu foofu la ñu denc Nkrumah ak Conakry ay at ci topp bi militaires yi jëlee pouvoir bi en Ghana def seen i jéeya ba ba Jory Rawlings yegg si mais

en tout cas est-ce que ñoom li booba li nekkoon ci xolu Ghanéen yi loolu la ñu doon fësal même scénario pour Modibo Keïta bi ko tubaab bi fexeel daaneel ko fekk dafa génn zone franc mhm. mais mais mais mais Olympio bés bi mu naroon a génnee zone franc pour samp euh, euh, sos euh, xaal koppar boppam la veille lañ ko boo la veille lañ ko euh, Modibo foofu laay yem foofu laay Modibo bi mu daanoo gars yi dañ doon fecc ci Bamako ñu tëj ko kaso ki daal foofu la dee national au Mali alors que c'était le même régime militaire bi ko daaneel au pouvoir Gaï, yi gis li mu la dictature de Modibo et le régime militaire mais les obsèques de Modibo, c'était des obsèques nationales, non organisées par le pouvoir. Donc, le temps est lay pour le la ne la mënuloo sukkandiku ci dit tassare, yi di tasaaree ci propagande médiatique ay RFI Nyomsen, TV5 France 24 di sol xelu ñi ñi nga xam ne seen xam-xam sorewul wala ñi ci ëpp sax jànguñu dégg nga ba noppi bëgg cee tibbee xam-xam mbaa xalaat pour ëllëg Lumumba ci foofu lay mujjee Lumumba bi ñu ko boomee moom moom c'est bien simple dafa proclamer indépendance le 30 juin ñu dóor ko mutinerie de la force publique le 6 juillet sécession du Katanga de Tchombe le 10 juillet Sécession du Kazaï de Kalonji le 15 juillet. Le 16 janvier, il était mort et enterré avec ses deux ministres, Polo et Okito, dissous dans l'acide. Les gendarmes belges nous l'ont déclaré 40 ans après. Dissous dans l'acide. Et pour que les Congolais n'aient pas un lieu pour se recueillir de leur héros national, père de l'indépendance. Euh, euh, ah, le Lumumba def non a ko bain d'acide mais gars il faut lire ce que les Belges ah, ont dit ah, non ko parce que si les il mi day trop pour moi de dans l'acide sulfurique ko un petit morceau muy moi, muy ministre Polo ministre Okito da mm-hmm. mais la même année la crise éclaté au Congo di mais en janvier ñu janvier 61 ñu euh, Patrice Lumumba. En septembre de la même année, nous attentat le secrétaire général des Nations Unies au Congo, qui était en mission, avait une mission. La première mission des Nations Unies en Afrique, c'était au Congo, dès 1960. Et Lumumba comptait sur les Nations Unies pour défendre l'indépendance et la souveraineté du Congo. Et Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies, suédois, est mort dans un mystérieux crash d'avion en septembre 61 et il s'est écrasé au-dessus, euh, à la frontière entre le Congo et ce qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Nord, actuelle Zambie. Il y a un film documentaire, il s'appelle en anglais, hein, malheureusement il n'est pas sous-titré, affaire classée Amar Schold film bi mu génnee daaw la ëpp na at ak bi mu génne kenn mënul fexe bi gis film boobu nekkul ci cinéma yi DVD bi kenn jaayu ko bi ma ko seetloo be laajte bi ma demoon bitim réew bi ma demee en Londres laaj leen Wow, en fait l'autre qu'on c'est que Netflix j'ai de droit Mais ah tiens, Netflix nous gis Cold Case à Marshall cliquer dara ah je ma bàyyi dellu Paris rak am Netflix ma pareil mu feeñ nga cliquer sama doom bu jigéen ne ma na soo demee Netflix Amérique xëj na fooy foofu di ko mën a gis yàlla def fii ci ndakaaru mii la sama benn doom bu jigéen ak xaritam Kenyaan ñoo ma ko génneel jox ma ko circulé mais gis nga bi ma seetaanee film bi ma ne ah waa yow lii moo tax gars yi bëgguñu mu génn dafay firndeel ci ay anam yoo xam ne kenn mën ko weddi que dañu exploser son avion en vol mais américains sud-africains yi belge yi ak tubaab complot pour que qui, il veut défendre les intérêts des Africains nouvellement indépendants on est en 1961 nañ ko fait nañ ko voilà d'accord donc loolu dañ ci a am ci pour parce que ni ñu def min Nkrumah Modibo oui justement c'est la réunion voilà c'était pour dire que euh, à chaque fois yooyu day am mën nañu citer ñu tous ceux qui ont défendu l'Afrique ñi nga xamante ne jéem nañu Afrique projet de société wala nekk ay politique wala ay bon à chaque fois euh, dañ leen di lu et tout même bu ñu au pouvoir euh, déjà duñ ko yàgg en général wala dañ leen di faagaagal mais souvent bu ñu leen di faagaagal en général du du du tubaab yi ñoo koy ñoo koy def c'est-à-dire ñoom ñooy exécuté mais nit ku ñuul si boppam moom mooy exécuté euh, population bi parfois dafay contribuer même si destitution régime boobu c'est-à-dire que même même bu fekkee ne. Euh, de manipuler les populations bi dañ parce que à chaque fois ñoom ñooy marche ñoom ñooy def ay réclamation ñoom ñooy def ñooy dem palais ñoom ñooy def soulèvement etc le ba régime boobu daanu ñu demande ba si mu ko si kanamaat ñu ne waat oui non ñoom kii bëggoon nañ ko c'est ça voilà. mais le fépp la. oui oui oui mais c'est pour euh, pour terminer. Mhm. que dafa am benn débat bu bu bees temps yi man nañ ko tudd sax mooy capitaine Dièye bi mu ne euh, bon nañu moytu euh, di wax ne ne bon tubaab bi nañ fi jógee ak yu mel noonu ak genre anam yu mel noonu bon parce que configuration bi mu mel euh, c'est c'est comme c'était compli c'est compliqué de s'en sortir dans en disant que nañ dem et cetera tout de tout tout bon là euh, c'est juste pour dire que euh, est-ce que vraiment, vraiment, vraiment, on a de la chance euh, quelqu'un qui nga xamante genre idéal yooyu lay euh, arriver au pouvoir mën réussir alors que manipulation yooyu nga wax condition de manipulation yooyu mu ngi fii ba vous ndax faw na li nga ñuy ji ñu ñun Afrique suñu ay mbokk ñoo ñoy jàppale. nasaraan yi ci yàq yi di ñuy yàqee suñuy réy réew loolu yemul ci ñun fépp ci àdduna gis nga bi Hitler euh, dale ci kaw euh, mbokk européen yi ah amoon na ay Pétain en France amoon na ay Quisling en Hollande amoon na ay ay ay y avait ay Chamberlain non parce que euh, Mussolini mook Hitler ñoo faroon alors que ñeneen yi Hitler dafay dal nous kaw nangu siif seen réew ba ñu xaatimal ko ne nangu euh, welcome yow daf lu baax ngay def mais mun naa la ci jox beneen firnde boo xam ne da lay wane ne yemul ci ñun gis vietnamien xam nga vietnamien yi nañu def nañu li kenn mosul a def ak tubaab yi ndaxte dañoo japonais pendant la deuxième guerre mondiale bi japonais yi capitulé rek ñu proclamer indépendance Ho Chi Minh 45 mhm. mhm. tubaab yi ñëw ne dañuy jëlaat seen Indochine bi ñu moomoon gars yi nekk déet du fii ñun pare nañ ci yéen gars yi ne comment pare ngeen di dem a dal seen kaw mu jëm ngeen fu la mujjee ñu dàq leen ni xaj mhm. dégg nga léegi américains yi ne ah donc yéen da di communiste yi japon vietnam yi da ngeen di wane da ngeen daal di leen leen woon naka la ñu ah. daal di ñëw ñoom ay xolu xaj lañ fa jógee ñoom tamit en 75. Donc les Vietnamiens sont les seuls à avoir battu les Japonais, les Français et les Américains à la guerre au XXe siècle pour un pays du tiers-monde. mais est-ce que xam vietnamiens du temps où tu vas, il y avait le roi Bao Dai qui était à la solde des Français et qui a pris sa retraite à Nice du temps des Américains il y avait Ngo Dinh Diem et après Ngo Diem il y a eu Nguyen Van Thieu mais ñom bi américain di daw pour partir sur à la nage dañu and ak ñoom américain Amérique tooguñu Vietnam mhm. donc envahisseur bogis, gis mhm. su xasse ba ñëw ci am réew dina fexé ba am ay doomi réewam ñu koy ne serait-ce que pour ñu lap tol ak ñu firil parce que ñom di duñ dégg làkku ñi ñi pour mën a non mhm. donc ce n'est pas spécifique à cela par contre euh waxu euh,

Fait que c'était un, un, un, un, officier subalterne. Je crois que c'était le, soit le capitaine, soit il est, non, il était peut-être colonel, je ne sais même plus. En tout cas, De Gaulle. le docteur. Beaucoup loin du commandement suprême bidal, qui mhm. n'y dogal, qui armée française, mais il était traité comme un rebelle, un officier félon. Mais, mais, là, nous def, déglu bu De dans son appel du 18 juin. Naine France tout !» France mënul wéet ndaxte am na gannaaw lan mooy gannaawam c'est son empire qu'elle a derrière elle wax na ko baam na ko baamtu na ko ñetti yoon bi muy wax et effectivement empire bi mais fa la moom moo ci ëpp mais bi mu ñëwee Dakar pour jéem a ku gouverneur Vichy la fi fekk Boisson kooku dóor ko ay bal mu daw waaye bi mu déggee Brazza nit ku ñu la fa fekk le gouverneur est de Félix, de mm-hmm. l'Afrique équatoriale française. Il est le seul gouverneur des colonies qui a rallié la France libre, Ben de Gaulle de Brazzaville, la capitale de la France libre. Pourquoi Parce que c'était un Africain d'origine. C'est un Guyanais. Mm-hmm. C'est un peuple rebelle qui a toujours résisté à l'occupation française. Donc, donc, il faut pas généraliser. Mm-hmm. Tout envahisseur cherche des suppôts et des supplétifs, des fantoches locaux. Et il en trouve, parce qu'il y a des lâches partout. Mais cela n'enlève rien à la volonté de résistance du peuple, c'est-à-dire de la majorité. Pourquoi Parce que l'itoy, qui ñom lay de dañuy ñew nangu suñu alal d'accord mais ci lool qui bi muy muy avancer émission muy wali mais d'accord mais ci lool hein en tout cas euh asiatique yooyu nga tudd fii ñu bari génn nañ ci

gis nga sooy li wax rek généralisation hâtive. Euh, ben, pas généralisation. oui oui ma dégg naa wax ji wax ji euh, ñaari ñaari la tontu ci ñaari fan. benn bi mooy bi ñuy génn ci deuxième guerre mondiale li tubaab yi jàppoon Berlin au 19e siècle 1885 toute l'Afrique était colonisée sauf deux pays et le Libéria et au moins le Libéria était une quasi-colonie américaine en réalité d'accord ñu yegg 1963 bi ñuy samp OUA lu mat fanweeri réew ci Afrique amoon nañu indépendant moomoon nañu seen bopp formellement maanaam ci wax maanaam drapeau hymne ak euh, drapeau hymne ak chef d'état <laughs> ak président daal bu ñuul. mën mm-hmm. hmm? nañ ko dañ ko të ko mais dañu taxawal comité de décolonisation de l'OUA dès 64 ne feek Afrique yëpp moomul boppam ñi moomagum seen bopp duñu mën a dem fenn comité de décolonisation boobu nag moo fexe ba ay euh, euh, Rhodésie du Sud Zimbabwe Rhodésie du Nord Zambie euh, euh les colonies portugaises xam nga portugais yi ñoo fi ñëk ñëw jóge biti tugal mais ñoo mujjee dem Angola Mozambique Guinée Bissau et Cap Vert Ils ñoo mujjee ñoom 75 rek lañ leen Afrique du Sud bu Mandela 94 mais en moins de 30 ans il y avait plus de 50 États indépendants sur le continent il y avait plus de colonies formelles le Sahara occidental bi nga hmm? Hmm. mais hmm. mais indépendance formelle c'est pas une indépendance réelle ci ni ñu jotee suñu ni ñu moomee c'est que un exemple Afrique du Sud moi, ci gën a parce que ñoom amoon nañu réew bi ñu tabax ba pare euh, xeex nañu

Madame, développement capitaliste monopoliste ou d'État productivisme destruction de l'environnement aggravation des inégalités c'est le modèle euro-américain qui est reproduit en Asie avec le modèle gis nga Afrique su naree xeex be moom boppam dëggantaan ci dëgg-dëgg ñu moom suñu maanaam si suñu ab réew ñun ñooy dogal keneen amu fa baat ci waa bitim réew bés bi ñuy yegg foofu suñu naree top yoon bi nga xam ne moom la suñu mbokk asiatique ñoo xam ne ñoo seqoon suñu bandung en cinquante cinq en cinquante quatre suñu defee ñi ñoom suñu leen royee booyee boo xam ne àdduna si planète terre bi mhm. jeexal na yàqu na yàqeet ah. te balaa yàgg mhm. day tas dañu war a xàll suñu yoonu bopp boo xam ne boo xam ne mbooloo mi njëriñu mbooloo mi moo ñuy jiital dégg nga euh, euh, suñu cosaan mhm. suñu xalaatu bopp suñu gis-gisu àdduna dañuy wéyal te gis ne jàngoro feebar bu bon mi nga xam ne moo law moo moo ma lëmmee àdduna ni ñu koy gars yi di ma faral di wax ah. ab ab la mandarga la ah piccum reteet la c'est un lanceur d'alerte gis nga virus bi li mu feeñal mooy ñi yaakaaroon ne ñoo tiim àdduna si di borom doole yi jàpp ñu fenn wéeruñu ko fen dama doon dama doon déglu Obenga tey si suba ci benn interview par hasard ci bi mu ne mais dañoo yaakaaroon ne seen science ak seen technologie en particulier seen médecine ñoo téegal bukki bi xool leen ni ñu tëlee suñu médecine suñu médecine daf ci profito mais suñu médecine ah. daf ci profito pour feeñ ah. pour fël parce que dañ ko doon daanaka dañ ko weddi woon ne amut dafa fël ndaxte résultat bi nii ci Afrique muccee amul benn continant ci àdduna si am na ci wàll way suñu c'est-à-dire li tax nii dal ñu ba yéem ñi des ci àdduna si euh, dafa bare te wute benn bi mooy ay ndaw a fi nekk ñoom ay màgget lañu ñun ay ndaw lañu benn suñu climat am na ci wàll léegi ban li ma li ci gën a yéem mooy li mu wane ne ndekete yoo am nañu suñu garabu cosaan fii nga xam ne kenn faalewu leen ñëpp leen xeeb ndaxte bokkuñu ci business bi business bi mooy big pharma mais suñu yeewu woon am ful fayda gëstu suñu xam-xamu bopp ñu koy woye xam-xamu nit ñuul la pharmacopée traditionnelle africaine, hmm, c'est une mine inépuisable pour régler les problèmes du continent, alors que la haute technologie, en particulier d'avant-garde là, qu'on nous présente, en tout cas y a signes par exemple am ay présidents président Madagascar. qui Madagascar. Madagascar comme toujours propagande ah, comme toujours malheureusement il y a non non non non c'est normal aussi parfois il y a une importance mais euh, c'est comme ça on, ne sent même pas le temps. voilà on sent même pas le temps passer. donc euh, pour terminer euh, disons l'émission mais sans terminer le débat on me fait lancer d'alerte donc Disney dit, il paraît il y a ay africanistes lañu bien que y a tout africanistes, il y a les universitaires les scientifiques les chercheurs autres mais il y si un mouvement il nga a un mouvement, c'est des africanistes qui seraient même des activistes euh, qui se réclament de la pensée de de Cheikh Diop ils s'inspirent de la pensée de Cheikh Diop mm-hmm. débat débat euh, pratiquement les gens sont en train de dire que euh, est-ce que par exemple Afrique pour mën ko valoriser est-ce que les religions euh, l'islam et christianisme ñen ñi né non munoo nek africaniste ba pare bolé ci naan euh, diine euh, l'islam ak christianisme parce que même chez Anta Diop si ça sa pensée mënul ànd ak diine yooyu est-ce que vraiment. ah oui loolu loolu am solo euh euh Cheikh Anta def ci wax bind ci. Ben, une mbirum nit ki ak boromam xaju est affaire personnelle donc l'État madame, ki yore ki ŋànk mbooloo mi yëpp ba war nga Monofarfen, c'est le principe de la laïcité de l'État il n'est pas négociable d'autant que les religions monothéistes sémites en particulier le christianisme et l'islam mais c'est vrai aussi de leur souche commune qu'est le judaïsme ont causé un grand tort à l'Afrique et aux Africains. maanaam am na colonisation boo xamante ne si si yooyu foofu la jógee si diine yooyu la jógee. mais c'est-à-dire ba seen seen diine la ñu indaale sëf ñu ko ndaxte ci ci nooteel bi la bokkoon.

te soo ko ñun mais ñun ñi bëgg Afrique benno que Afrique ben yëpp nekk benn da ci ci boole naar yi parce que am nañu dans la partie nord ay naar ci ay la partie austral ay nasaraan yi de yi dowul loolu li mu firndeel mooy ñun état bi ñu bëgg a tabax muy état fédéral ni nga ko waxee ou un état unitaire aussi on verra ça ça se discute multina il doit être un État non racial, non confessionnel, non tribal, non ethnique, basé sur l'égalité absolue des genres dans tous les domaines de la vie sociale. Donc cet État-là, ça, ça peut être un État démocratique et souverain, la, la souveraineté est la condition de la démocratie. Mm-hmm. Et je crois aussi que la démocratie est la condition de la souveraineté. de nga maam te ci euh, dëgg suñu légui bëgg waxtané mbirum dund ak ak so xassé ben law lan ngay fekki ci barsax am na lu fi égyptiens yi bàyyil de te soo ko gëstoo <laughs> di ci xamme lu baree bari ci li gëm-gëmu ci diinewu semit yi indi ci diinewu yawut yi indi mais balaa ñoom sax ci li ko jiitu li mythologie grecque le panthéon grec mais c'est un panthéon égyptien européanisé les dieux les divinités de l'Égypte c'est transcrit mot à mot pour mot dieu pour dieu du panthéon égyptien donc c'était là la preuve que la religion aussi et pas seulement la science ou la philosophie venait de l'Afrique donc gëstu suñu xam-xam bi nga xam ne mooy xam-xam ngi njëkk taxaw ci àdduna si saytu ko li ci am njëriñ ñu wéyal ko saxal ko lii amatul solo wala du jëriñ wala sax mu yàq mais ñu dindi ko sànni. d'accord euh, voilà je pense que euh, yaatu na. Eh, yaa ko yaatu na am na ñu am bare bare bari. donc euh, xëy dañu am beneen occasion pour euh, mën a ñëwaat euh, si yeneen aspect wala développer aspect yi ñu gën approfondir donc suñu émission bi jeex na. léegi ñu wax la wax ah yow kañ teg ñu waxtaan wi man kañ la lu ma aw lu ma ciy teg lu dul yoon yemul ci benn ñi ci bari. dañ ko fël rek dañu jàll waaye ñi bëgg a xóotal wax ji daal ak waxtaan wi nañu waxtaan ak Cheikh am na benn euh, kàngamu doomi réew mi nekk bitim réew Canada ñu tuddee ko Khadim Ndiaye benn genn ab téere conversation avec Cheikh Anta Diop gis nga se conversation avec Cheikh Anta Diop euh, ku dugg ci xalaatam ak i mbindam ak i téereem yi mu bàyyi ah waxtaanal ak Cheikh Anta di nga ci dimbalu bare bari donte ñëpp mënuñu am li ñu amoon ñun maanaam di jàkkaarloog moom di ko laaj. Euh, bi vraiment euh, une part bu nekkoon en français

Alamine Boutique est une entreprise spécialisée dans la distribution de produits alimentaires sénégalais. Notre mission est de vous donner accès à des aliments locaux de qualité qui participent à votre bien-être et celui de vos proches au travers d'un commerce équitable. Alamine Boutique, c'est aussi le choix de la qualité et du goût de produits locaux soigneusement sélectionnés et triés sur le volet. Acheter des produits venant de tout le Sénégal sans bouger de chez vous, c'est possible avec Alamon Boutique. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits qui font la richesse de notre gastronomie locale. Arao et Chakri, Central, Kinkeliba, pâte d'arachide et bien d'autres mets. Nous avons une unité fonctionnelle qui respecte les normes de fabrication de produits alimentaires et des points de vente un peu partout à Dakar. Consommez Alamine Boutique c'est favoriser le développement de notre économie locale. Consommons juste et consommons local.